asalaamaaleykum chers internautes de Lou'Bess TV asalaamaaleykum chers sénégalais di njëkk di wax euh, bonne fête de Pâques à tous les chrétiens du Sénégal et du monde entier aussi di di ñaanal musulmans yi nga xam ne ñu ngi ci weeru koor yàlla nañ ko terminer ak jàmm ak salaam. tey nag ñu ngi fii ci cathédrale pour fekkee dernier messe bi nga xam ne ne mooy am chaque année concernant Pâques ñu daal fi benn jeune bu ñuy wax euh, Félix Diatta Félix ñu lay nuyu di la ziar. maa ngi di rafetul tamit ci seen teewaay fii nii ci cathédrale Dakar di naan tamit euh, bonne fête euh, de Pâques à tous les à toute la communauté euh, chrétienne di Sénégal en particulier et de toute l'Afrique et du monde entier. te gis nañu ne Pâques bu bu jotee messe yi day bari dernier jour yi lan moo ko waral ak bu nekk lan mooy importance am. merci ci sa ca sa question bi. Mhm. mu nekk question bu am solo bon Pâques nii dañoo gis ni déjà avant Pâques bi dafa préparation bu gudd. moom la ñuy ne carême voilà carême boobu noonu nag dafa durer quarante jours quarante jours yooyu dañ ko xayma ci euh, jamono amoon na peuple Égypte bi nga xam dafa doon traversé lu ñuy naan traversé du désert te defoon na ko muy quarante jours léegi ci quarante jours yooyu tamit Yeesu Christa moom dafa demoon tamit ci désert bi Euh, ci désert bi dafa demoon fu mu di def ay épreuve lu ñu koy wax. loolu noonu loolu la ñu bëgg assimiler tey ji chrétien yi passage boobu noonu ak euh, remémoration Yeesu Christa yu mu def ci désert bi 40 jours yooyu ñuy def ni feete ni carême bi. Mm. léegi carême bi waaj a na nag day lu ñuy naan semaine sainte. semaine sainte moo nekk euh, dernière semaine euh, Pâques bi voilà avant semaine sainte bi dañuy am benn dimanche mooy dimanche des rameaux boobu mooy dimanche bu précédé semaine sainte bi dimanche boobu noonu dafa nekk dimanche bi nga xam ni Yeesu Christa moom lañ doon dalal ci Yerusalem te Yerusalem moom dem fa lay gaañuwee foofu nu Yerusalem te fa lay motaliyee lu ñuy naan par exemple bindu même écriture bi a ji nga am ñu fêtee Pâques bi léegi dimanche di rama boobu noonu boobu la ñu fêtee woon mooy dimanche bu passé bii nii léegi su weesoo dimanche di rama dañuy dugg lu ñuy naan semaine sainte mm-hmm. semaine sainte boobu noonu euh, ñun ci euh, catholique yi dañuy na mooy semaine bu gën a am solo ndaxte ci semaine sainte boobu gis ngeen ne am na yu bëri même fii ne cathédrale te tamit ci Sénégal yëpp mm-hmm. léegi semaine sainte boobu noonu célébration lundi de Pâques. Mhm. Euh, lundi de Pâques bii nii moo nekk euh, juste après dimanche de Pâques bi. mais avant dimanche de Pâques bi am nañu lu ñuy naan tridome pascal tridome pascal mooy maanaam ñetti bés la maanaam jeudi jeudi saint la vendredi saint ak samedi saint bu ci nekk nag am na am na am na am na solo nag. voilà euh, c'est obligé nga ñëw mees yëpp wala yaay xol bi la bi nga mën disponible nga ñëw. voilà bon idéal bi mooy nga ñëw Messi parce que Messi dañoo wute parce que nee naa la semaine sainte bi mooy semaine bi nga xam moo gën am solo ci ci ñun léegi semaine sainte boobu noonu da ngay gis ni pratiquement ci la ñuy retracer histoire jàngu bi yëpp. léegi mees bu ci nekk am na solo. dafa wutee donc soo mënee ñëw euh, célébration yëpp mooy dàkk parce que boo ci nekk da ngay gën a xam solo mees boobu noonu am na première ñu dañ leen naan bon euh, damay ñëw mees samedi bi du ma ñëw mees dimanche bi te ñoom ñaar dañoo wutee mees samedi bi am na lu muy tekki mees dimanche bi tam am na lu muy tekki voilà. Euh, du ñu wax ci ci ci ci ci carême bi te du ñu wax ci ci du mën a sa dialogue mais cohabitation bi am diggante les musulmans et les chrétiens ici au Sénégal tey yéen ban ban jàngat ngeen ci am dëkkuwaay bu rafet a merci Amadou man am na sa kuy naan ni waxaatuñu euh, dialogue islamo-chrétien parce que Sénégal dépassé na foofu noonu. tey jii Sénégal euh, je dis je dirais au niveau mondial dañ koy jël en exemple par rapport à cette cohabitation. entre euh, musulmans et chrétiens en particulier mais entre toutes les autres religions ici présentes au Sénégal tamit mm-hmm. loolu ñëpp di ko rafetlu te ñëpp ñu koy dinaan lii lu rafet la trop ci Sénégal. ku nekk ci àdduna mu ngi mu ngi bëgg Sénégal ci loolu noonu. Mm-hmm. donc tey Euh, weesu nañu dialogue bi ñu ngi ci confirmation parce que tey jii nii ñu ngi dëkk ak suñu morom euh, suñu frères et sœurs musulmans chrétiens. Mm-hmm. xëy na sa soo xoolee sénégalais authentique di nga nekk ci benn famille par exemple bi nga xam ne sa famille bi am na ay chrétiens. am na ay par exemple sama mm-hmm. na loolu noonu donc loolu dafa nekk li nga xam ne dañ koy dund. Mm-hmm. te dund boobu noonu dafa nekk à travers toute l'année que ce soit tey jii chrétien suñu amee xew dafa mel ni musulman am xew. su ñu amee par exemple musulman yi suñu amee xew dafa mel ni chrétien ñu am xew donc loolu cohabitation bi nga am ni dafi nekk te ñuy ñaan mu gën a tamit di continuer di continuer dara bu mu ñu jaxasee. am na kuy dem di naan euh, Sénégal benn bopp kenn mënu ko ña kenn ko xaar ñaar voilà dem nañu sa be gis suñu kii bi c'est un peuple un but une foi donc lu loolu noonu man dama gis ni euh, lu rafet la trop. te dama yaakaar ni benn patrimoine la benn héritage bu nga mm. xam ne moom lañ am. te benn fondement social bi nga xam peut-être yeneen réew yi amuñu ko. donc tey jii ku nekk que ce soit nga nekk euh, chrétien wala nga nekk musulman wala beneen religion da nga nar toujours di œuvrer pour loolu mu mun a perpétuer. loolu noonu moo nekk li nga xam ni moo moo moo defar Sénégal moo rafetal Sénégal te yaakaar naa tamit loolu noonu Sénégal ci lay sukkandiku pour tamit mun a. yéeg ci kaw te mun a développer bu baax a baax. macha allah allah ñu gis ni dernier jour bi bu ñuy waajal ngalax yi euh, pression bi leen musulman yi di teg euh, woote téléphone bi comme si. Euh, ñoom ñoo ko sax laay wax loolu <laughs> mooy lu doon waxtaan nii rek am nga loolu yëpp ci kii bi la ci kaf bi la ci reetaan mais parce que c' est la cohabitation. da nga ay mis ma nga xam ni sax sama xarit ñoo ñoo may tooñ nee ma ah, suñu ngalax bi de man de yoo laay déglu na gaaw na gaaw vendredi moom su jotee rek ngalax bi foog mu ñëw. donc loolu dafa li nga xam ni euh, dafa am solo trop te yaakaar naa ni genre euh, du du du sa ay ay foo la nii mais mm-hmm. ay dundin la. dundin donc tey jii nii euh, suñu moroom musulman xam ne ñun ñoo aaye tey jii. Mm-hmm. ñoom ñooy aay ñoom ñoom ñuy tooñee ci ngalax bi mais ngalax bi sax loo ci xamul sax ñoom ñoo koy gën a naan ko ñun luñ ciy naan ñoom ñoo koy gën a naan ah. mais am na sax ku naan ni ngalax bi c'est un symbole de mm. dialogue islamo-chrétien non ah, c'est un symbole bi nga xam ni c'est vrai euh, son sens Euh, proprement dit si jàngu bi nekkul euh, par exemple un sens qui est très par exemple soo xoolee yeneen dëkk. Mhm. yeneen dëkk ci àdduna bi. amuñu ngalax amuñu ngalax mhm. waaw peut être sous région bi dina am ngalax tout mais parce que Sénégal ngalax boobu noonu comme je le disais rek dafa nekk symbole bi nga xam ne c'est un symbole de dialogue islamo-chrétien soo xoolee tamit suba ou bien weer bu di ñëw ni euh, suñu morom suñu frères et sœurs musulmans dañuy def korité. korité boobu di nga gis ni par sama xarit musulman des fois jour bi dañu doon solo ñun ñëpp. waaw ñoom ñooy dem jàkkam ñun dañ dem demee ci buntu jàkkam ñu taxaw fa leen xaar suñuy génnee ñu ànd day mel ni comme ñun ñëpp ñoo jógee euh, jàkk bi ñu dem fi lakk euh, lakk par exemple yab bi ñoo koy défendre tout ça donc tey jii nii suñu doon tooñ suñuy tooñ nañu ngalax bi ngalax bi tout ça loolu c'est bien et puis sa ça montre que y a vraiment une harmonie am na vraiment benn euh, benn benn socle social bu fi nekk te loolu ñu ci rafetlu bu baax a baax. Euh, ñu gis ni euh, ren mu nekk ak mbir bu doy waar mun nañ ne ngeen commencé carême bi ñu dem ba ci digg bi musulman yi ñëw ak ramadan dëkk bi ñëpp woorandoo lu mu leen def ban effet la la def. Ah, loolu kay xanaa mbégte rek. mbégte tey di sant yàlla ci loolu noonu ma yaakaar ni nekkul hasard. man di noonu laa noonu laa ko gisee te itamit am na am na ñi nga xam tamit ko gisee yaakaar ni du hasard kese moo tax ñu am euh, no carême ramadan parce que loolu noonu loolu noonu soo bi ngeen doon euh, bi ngeen doon woor noonu mhm. mooy premier jour ramadan bi mhm. ak ni loolu noonu euh, chrétiens yi musulmans ngi woorandoo même jour boobu noonu donc mu nekk loolu rafet la te loolu la la ci yokk mooy par exemple xam nga ñii ñu ngi ñaan ñii ñu ngi euh, ñii tamit ñeneen ñu ngi ñaan te que ce soit carême ou bien ramadan ñii ñi dañ ciy gën a euh, seetlu di gën a observer bu baax commandement yàlla yi donc da gis ni loolu noonu dafa nekk lu sell lu dafa nekk lu sel te yaakaar naa ni ñii ñi dañ ko dund avec une grande euh, une grande joie te tamit ji gën a yokk ñaan yi parce que comme je le disais gisuñu ko peut mu nekk li nga xam ne c'est un hasard mais dafa nekk li nga xam ne confirmation euh, lu amoon en tout cas Sénégal lu fi yàggoon am daal cohabitation boobu noonu parce que au-delà de loolu noonu sax même ñun suñu nekkoon carême bien avant par exemple musulman ou bien musulman yi nag ñu nekk carême ñu nekk gis ni suñu mbokk dañu dañ ciy jàppale par bi bu ñu no sama sama morom musulman yi ñu ngi euh, ah, tamit ñu ngi leen di jàppale ñu ngi leen di wor mais ñu ngi leen di jàppale ci xëy na yeneen façon loolu yëpp benn confirmation la macha allah macha allah mun nañ ne en tant que jeune ah euh, tey ban message ngay lancé à toute la population sénégalaise tey jii nii maa ngi leen di gërëm yéen waa Lou'Bess TV ci teewaay bi déjà euh, en tant que jeune jeune chrétien et jeune sénégalais aussi te lu may appel lu may lancé bi message bu may transférer à à partir seen seen sen seen seen bi nii. Mm-hmm. déjà souhaiter euh, euh, joyeuse Pâques à tous mes frères et sœurs euh, chrétiens. Ah, mais aussi à travers cette fête de Pâques la maa ngi ciy profiter tamit naan bon Pâques. dafa nekk li nga xam ni mbégte la. Mm-hmm. mbégte la ci ñun dafa nekk li nga xam ne am na solo ci ñun très jii nii dafa li nga xam mooy fondement xëy mooy sa fête bu gën a rëy ci ñun euh, catholique yi donc à travers message Pâques bi mooy lu ma woon mbégte la donc maa ngi naan nit ñi dañuy gën a euh, bëggee. parce loolu la soo gisee souffrance yi su Christa yu mukk yëpp. pour benn euh, but la dafa nekkoon pour euh, sauver euh, humanité bi donc à travers le noonu à travers joie Pascal boobu noonu ñu ngi naan bon ku nekk chaque sénégalais chaque sénégalais sénégalaise mu œuvrer pour ñu mun a am mbégte suñu réew pour ñu mun a jëm ci kanam voilà xëy na ku nekk sa am nga sa gëm-gëm voilà ku nekk am nga sa fois mais c'est à travers euh, genre comme lu ñu amoon ni ramadan euh, karim ni genre yooyu la ñuy gën a consolider ñu xam ni ñun ñëpp ay jullit lañu dañoo gëm yàlla te ñun ñi tey ji euh, suñu yàlla bi dafa dékaliku dékaliku boobu noonu mooy maanaam tey ji amaatul beneen tiit bu ñuy amaat parce que moom il a vaincu la mort hmm. donc à travers loolu noonu ñun ñun ñëpp on est des ambassadeurs de joie pascal donc hmm. ku nekk ci ñun da nga war a transférer œuvrer nga joxe tamit joie boobu noonu ci sa réew ci sa cohabitation ci entre yow ak sa frère et sœur que ce soit euh, musulman ou chrétien donc je pense que loolu noonu Euh, moo nekk message moo bëggoon euh, wala transmettre macha allah ah, ma kàddu yi rafet na vraiment Félix euh, merci beaucoup ci ci quelques minutes di ñu consacré di di remercier waa Sénégal yëpp di remercier aussi sama sama xaritu chrétien yëpp ku si mel ni Christophe Gérald Jo Marcel vraiment mun nañ ne Sénégal benn bopp la kenn mën ko xar ñaar dañ ko fi fekk te dañuy ñaan yàlla suñu borom mu continuer te képp koo xam ne ne jog na pour pour yàq Sénégal yàlla na këpp sa kaw loolu laa lay wax ah na këpp sa kaw di salaam ñu jeexal koor gi jàmm dëkk bi continuer di neex jërë ngeen jëf di remercier aussi sama caméraman Assane nga xam ne fu ma dem moom lay àndal Assane bu Lou'Bess TV euh, Faramareen bi doomu Ndeye Waly Seck ma koy remercier bu baax a baax jërë ngeen jëf